bon dañu ministre de l'Éducation nationale pour partager rapport national international rapport mondial sax rapport système éducatif Et at UNESCO rapport maintenant rapport pour nous, euh, analyse ci plein feu plein feu euh, lumière Euh, données yi nga xamante ne résultats yi nga xamante ne génn na ci rapport bi chaque fois dañuy tànn ay réew suñu suñu réew bi nag dafa bokk ci bii paa ci ñooñu nga xamante ne ñoom def plein feu bi muy ñun ak yeneen ñetti réew tey nag ki nga xamante ne mooy diriger rapport mondial bi ci UNESCO mu ñëw ànd ak ADEA e mi nga xamante ne ONG africaine bi nga xamante ne daf ñuy jàppale ci njàng njàngale ñu ñëw ñoom ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbir moomu ñu ñëw ak ñun tey bi ñu defee étude bi ba pare ñëw nag di partager résultat yi ak ñoon ñu kontaan ci lool parce que dañoo gis ne euh, thèmes yi nga xamante ne yëpp génn na ci rapport bi résultats yi nga génn yëpp mooy am na lu ñu def lu bari ñun ay jéego ci njàng ak njàngale gis nañ ne am na lu des lu ñu gën a kontaan loo mooy gis nañ ne ñun li nga xamante ne moo nekk ay priorité ci ñun loolu que moo génn ci ci rapport bi moo génn mais daf ñuy conforté ne ñun ñu ngi ci yoon bu baax bi yoon bu baax bi mooy dañ ñooy gën a ñaax rek te ñun tamit dinañ gis nañ ne recommandation yi nga xamante ne génn na yëpp dinañ xool dinañ ko exploité fii en interne xool naka lañ koy jëfee pour que yoon bu baax boobu nga xam ne dèjà ñoom ñun ñu ngi ci woon ñu mën a gën a continuer suñuy jéego pour gën a mën a am qualité ci suñu système éducatif. défi fii mooy yi ci gën a génn mooy nu ñuy defee suñu la yi naka lañ koy gën a dugale ci lekkool yi yàlla def na comme ni ma ko waxee sànq ñu ngi ci woon ñun maanaam ministère éducation depuis fii ak mat na juróomi at mi ngi ci dynamique boobu. te gis nañ ne ñun ñu ngi avancé at bu jot rek dañuy yokk école yi nga xamante ne dañuy jëfandikoo suñuy kàllaama te dañoo xalaat ne fii ak 2028 école Sénégal yëpp dinañ mun a xale yi Sénégal laay wax sax dinañ mën a jàng ak seeni kàllaama donc loolu ñu gis ko mu génn comme défi mais ñu ne défi la xam ne dafa nekk à notre portée parce que ñu ngi ci aussi ne dañoo analyser ci rapport bi xale yi nga xamante ne nekkuñ ci système bi dañ ci wax naan la ñuy développer ay stratégie pour que xale yooyu yëpp xale parce que le droit à l'éducation mooy état bi dafa war a jàngal xale yëpp ñu ne loolu dañun ñu ci depuis 2017 ñu ngi ci def nañ benn étude bu nga xamantene dafa ñu wan xalé yi nga xamantene encore ñu ngi hors système biñ ko gisee depuis 2017 ñun dañu développer benn stratégie d'insertion de ces enfants donc ñu ngi ciy liggéey ràññee xalé yoy ñan lañ fan lañu nek pour def suñu indicateur bi nga xamantene xol suñu indicateur yi nga xamantene ne ñoo ñuy wax né est-ce que ñun efficace nañ wala efficace suñ parce que yoy yep c'est l'efficacité interne du système éducatif manam xalé yep est-ce que xalé yi wara jang yep yëpp ñu ngi ci l'école bi su fekkee am na ñu ci des ñaata lañ ak ñun yan approche la ñuy def pour jël leen pour mun leen dugal ci système éducatif bi